man tuuti naa pour wax si coon mais kii moo xam coon moom moo mën a wax si coon ba ni may nekkee ci kaamil bi n'empêche que ni ngi coordonné ni ngi waxtaan man ñii rek laa bëgg ñii rek laa fonk mhm. kii damay yendu këram ma ngi nuyu tata tata jàlloo Diallo di soxnaam di suñu yaay di suñu xarit man ñii rek laa bëgg ñii rek laa jox cër ñii rek laa fonk parce que ñii ay ikon nanu ñii ay monument nanu mhm. ñii ay légende nanu moo tax ku leen cëral mhm. yàlla daf lay cëral mhm. ku leen cëralul tamit terewul yàlla cëral na leen ba pare moo tax man ku mel ni ku ko fonk laa. ku ko bëgg laa. di Ismaïla Lo. macha allah papa Ismaïla ñu nuyu la waaw da nga ñu dimbali xam nga loolu parce que suñu mag dafa génn àdduna. Mhm. muy loo xam ne nag doone ne metti na. Mhm. dañuy sant yàlla rek. waaye nag bis bu mel ni bu ñëwee. ma mhm. doo nekk. doo nekk man man personnellement sama xarit la woon. sax musique bee ñu boole moo ñu boole sax mais. sama xarit la daal si gàttal amul wax boo xam ne mën na mën na remplacer li mu bëgg wax. Hmm. waaw sama anecdote ngay fàttaliku ci moom tout le temps rek. non non non nekk nii. Hmm. donc dama def interview. Hmm. du dëgg ñëw na daal pour marquer de ma présence. ah c'est les un an sous terre de mon grand frère Thione Seck. waaw léegi su ma fi def interview vraiment nekk moom. pour faire euh, ay interview du dëgg maa ngi di remercier yenn yéen nag toute la presse mhm. parce que yéen ngi fi taxaw di def seen liggéey mhm. di jéem a couvrir événement yi mhm. donc bon ñu ko jàll waa Sénégal yëpp parce que ñun ñoo ko ñoo ñun ñëpp ñoo ko ñàkk et voilà donc mm. du ma mën dugg si interview daal ah yal na yàlla xaral ko àjjana. yow pour nga ñëw suñu fay di la masawu ci li ñu bokk. di leen masawu tamit coono bu ñu bokk ñun ñëpp. tey su ma la nee euh, Papa Thione lan ngay wax ci moom. Ah, d' euh, abord damay nuyu euh, mbokki téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp ak mbokki internet yi fi teew yëpp waaw ku mel ni Papa Thione il restera toujours dans nos cœurs Thione c' est quelqu' un boo xamante ni que c' est une intelligente et puis on avait des relations particulières man ak moom donc fii mën naa ni sama kër la daana ma fii mu mu daana ma fi gët euh, dama doon partager ak coon nag lu bëree bëri en général les dimanches euh, la ma daan invité su ma ñëwee ñu ci néegam pendant quatre heures cinq heures de temps toog ci kaw lalam di waxtaan xam nga loolu moom boo amul nit ak affinité mu lay dugal ci néegam mooy euh, wax dëgg yàlla sequl ngeen lu bëri yéen ñaar donc coon nag euh, li ma ci wax sànq rek moo ci nekk nit booy ànd ak moom da ngay ànd ak moom pour le meilleur et pour le pire dafay neex ngay ànd ak moom mooy naqadi ngay ànd ak moom or que tey coon il n'est plus là nekkatu fi mais sa femme la là muy ajaratu Kiné Diaga nga xamante ni jigéen ju mën góor jigéen ju baax jigéen ju fonk doomu aadama yi mais jigéen bu jullite jigéen ju fonk njaboot waaye ba pare tamit euh, doon mbokkit moo tax fii sama kër la fi ma ñëw nii sama kër la donc euh, maa ngi koy jaalewaat artiste Sénégal yëpp euh, di ko jaale maanaam la culture sénégalaise jaale ko vraiment ay soppe am di jàmm artistes am yu mu daan àndal ay nawleem ñu ci mel ni ñoom Youssou Ndour ñu ci mel ni ñoom Omar Pène ñoom Baba Maal ñoom Ismaïla Lo euh, di leen xamal ni que ni vraiment quelqu'un comme Papa Thione il restera toujours dans nos cœurs. tey euh, ban souvenir nga am ci moom boo xam ne heure boo ko xalaatee rek sa xel day dem ci moom. Euh, souvenir bu may am ci moom mooy ba ma ko bëggee invité groupe Futur Média mu jafe woon trop. Mm. waaw mu métti woon trop ndax ku xam Papa Thione xam diggante moom ak euh, Youssou Ndour c'est une longue histoire sénégalais yi ku ci nekk daan na am noo koy interprété euh, Youssou bëgg coon coon bëgg Youssou euh, nii gisee foo xam ne fu ñu dul fekkee nii nekk tamit foo xamante ni ñu fu ñu dul gis ak fu ñu dul fekkee mais nous les sénégalais on a tout le temps l'habitude di wax yoo xamante ni ñu dul maîtriser à cent pour cent ba ma ko invité Futur Média vraiment dafa nekkoon coow bu rëy ci dëkk bi mhm. waaw parce que ku xam euh, Thione Seck mhm. ci fulaam ci faydaam mhm. ci détermination ak gëm-gëmam loolu mënu ko fàtte parce que ba ci jour bi mu waree ñëw sax euh, Thione dafa bàyyi ba 17 heures 30 mu mu ne ma sama xarit nga loo ma sant ma defal la ko loo ma ñaan ma may la ko mais nag affaire bi dafa dem ba ëpp ma loxo ndax ñun ñi dañ def Euh, sama fan yi dañ def délégation cellule bu ne ñuy jóge ba hors de Dakar uniquement pour invitation bi ma ko defal euh, nu wax ni coon bëggunu mu ñëw euh, Futurs Médias mu nekkoon combat bu metti nag ba émission bi desee plus de une heure de temps pendant une heure de temps ba léegi xaw ma fu fu sama tànk féete à ma grande surprise du ma ko fàtte aussi mm-hmm. Wally m'a appelé au téléphone chez moi Euh, mu ne ma Sidaat euh, paa bi dina ñëw. ma ne ko Waly paa bi li may wax ni saa va pas quoi. Mm. mu ne ma jiitul paa bi rajo nga dem nga job paa bi mi ngi ñëw léegi. man mm. maa la ko wax je te le promets. Mm. donc ce jour là toog naa ba dix huit heures. gisaguma Thione Seck may xoolal may lox. parce que dëkk bi ñëpp dañ na woon Thione Seck du ñëw. Mm-hmm. doon ñëpp Thione Seck du ñëw. Mm-hmm. ba ci yàlla defee jàmm ba Thione ñëwee. Mm-hmm. loolu euh, mënoo ma dama ne. Euh, ndam gënatul neexee lu mel nii. ndax euh, ku mel ni Thione mm. lu koy wax digganteem moom ak Youssou Ndour pendant des années et des mm-hmm. am na xam ne judd dañuy dañuy judd fekk ko fi am na ñoo xamante ni avant ñuy judd sax. Mm-hmm. fekk nañ ko fi am na ñoo xamante ni que ñu ci bëree bëri ku ci nekk histoire Thione Seck ak Youssou Ndour dafa yàgg nekk coow Sénégal. Mm-hmm. mais keroog ba Thione yegsee biir Futurs média Euh, sac ak ndam ak contentement bu rëy musuma ko amee noonu sama àdduma ba mu daree liggéey ci communication ba tey di liggéey euh, ci ci ci ci rajo mm. di invité keroog musuma am contentement bu rëyee noonu et moom ci boppam mu ñëw tamit def émission bi avec cœur waxtaan ak ñun kafoore mm-hmm. et émission bi waroon nekk benn émission mais finalement ñaari émission la mu dee nekk ñaari édition tellement que neex gu mu neex mm. et puis Papa Thione nekk un un homme humble un homme gentil un nom vraiment euh, agréable nit bu gëm yàlla xam nga nit bu dëggu nit bu véridique Thione loo wax ci moom am lu des au fait donc yàlla na ko yàlla xaare àjjana que Dieu l'accueille sur son paradis xam nga ñun loolu ngeen ci am di ko ñaanal mais aussi nu jàppante fonkante te xam ni Euh, njaboot la fi bàyyi ku ci mën euh, di ko nemmeeku ñëw seet si njaboot gi am na ci solo waaw ndax coon ku ci nekk rek am na lu mu la lebal Sénégal daal donc euh, li am solo mooy yal na yàlla def jàmm fa mu tëdd yal na ko gënal fi mu jógee njabootam gi fi bàyyi yal na yàlla teg loxo si ñoom yal na yàlla jàppale leen jàppale Sénégal yëpp quoi en fait gis ngeen tamit je vais pas dire un collègue mais un collaborateur Ndate Diop nga xamante ni que euh, c'est un moom euh, c'est un frère. Mm-hmm. Euh, donc c'est c'est un ami depuis très longtemps xam nga euh, moom gis ngeen moom tamit mm-hmm. vraiment moom làqu na. moo tax yàlla na ko yàlla xaar àjjana Sénégal ñëpp ñaanal ko ndaxte nit ku baax. nekkoon journaliste boo xamante ne nekkoon un journaliste culturel et puis nekkoon ko ñu joxoon cër tamit ci wàllu communication bi ñuy liggéey que Dieu l'accueille sur son paradis et que lu ci des daal euh, nu ñaan te xam ni Sénégal dëkkub ñaan la dëkku jàmm la dëkkub euh, xéwal la mi ngi noonu voilà merci maa ngi fay bàyyi leen si jàmm ñu ngi bu baax alhamdulilah mhm. Eh, ni meloon ci yow muy sa mag ngeen bokk ndey ak baay tey muy un naa eh, ci suuf lan nga yëg. waaw ah, doo doo ko mën a expliquer à part xanaa daal di delloo yëf yi ci suñu borom rek te xam ne moom moo ko moom te ñun ñëpp moo moom donc un an déjà gis nga at nu mu gaawee. Mm-hmm. Euh, bés ni kii ci maanaam ci un an bii nii tey. métti mm-hmm. woon gën na fee métti. àdduna bépp di di ko jooy ndax Thione du ñi mu bokk rek ñoom la ñooy famille àdduna ñooy famille loolu yàlla dogal loolu loolu rek ak sant la lu defoon loo xam ne lu ñaaw la kenn duñu ko jooyle defoon loo defoon loo xam ne safaan wala xëy na di nga gis ñoo xam ne dañ lay jooyle ba yow doo tala jooy donc loolu sant suñu borom di ko ñaanal di ñaan yàlla li ñu fi ñaan fii ci këram gi tey kër jaago gi eh, Fat Kine Diouf jaago ak njaboot gi yàlla yàlla na ko yàlla nangu séddale ko bépp way dawlu ak foo mën a nekk nag ñaan yàlla rek ñi jiitu ñi nga xam ne ñooñu jiitu yàlla xare leen àjjana fii daw si daal di leen xare ca àjjana fii si ga rek wax dëgg yàlla nag bu bu hmm. c'est normal parce que coon euh, du taaw mais moom moo créé euh, li tax ñuy wax Faramareen. Mhm. Faramareen fekk coon fekk parce que ay maam lañ. Mhm. Faramareen ay ci moom la ko yàlla jaarale. tey ba ñu ñëw ba ñun di ci bay sa mhm. lan moo la gën a marqué ci sa mag boobu di Papa Thione ba tey boo ko xalaatee bu ci demee rek sa rongoñ tuuru. non loolu bari na loolu lépp bari na man su ma jàppee ne man fi ma teg fi ma tegoon en tant xale ma gën fi nekk xale. à part mi nga xam ne man maa ko mag ci ñi mbokkal ndey ak baay ma gën ci nekk xale ak fan ma tegoon nan ma fonk woon nan mu rusé woon man ma bëggee woon loolu rek mën naa euh, mu nekk mois boo xam ne dafa xaw a mythique ci moom. mu ngi gën si àdduna. le 12 mars 1955 génn àdduna le 14 mars 2021 euh, mu nekk weer woo xam ne dafa nekk weer wu rëy ci yéen lan ngeen dundee ci loolu. sant yàlla. oui ma nañ doon sant yàlla tey ñaan rek tey ñaan rek xam nga ne wax dëgg ñun man xaw moon sama yéen naan fekk donc te wax dëgg yàlla lii indiwuñ fi woon ñëw di ñaan rek moo ñu fi woon lii yëpp indiwuñ fi woon dëgg la Papa Keba ah papa ko may ki ne moog Moïse Ba hmm. maamu Waly non man témoignage yi ma mën a def ci Papa Thione bu ma fi nekkoon fii ba ngoon du ma pare. Mm-hmm. parce que man chaque suba teel maa doon jënd journal ñëw fii mënu ma dig lu xew ci dëkk bi. Mm-hmm. ma wax ko lépp. Mm-hmm. bu may dem mu yëkkati cinquante mille. dox ma. chaque jour. waaw ba pare nag ni ma yow doo sama goxo sama rakk nga. dama laa bëgg. man ni ma bëggee ñoom Kéba ñoom kii ak yooyu sax bëgg ak Ousmane yooyu euh, yow laa gën a bëgg ko ñoom mm-hmm. waaw yore sama jàmbaat nag hmm, hmm, ci anim bu rafet mm-hmm. respecté ko jox ko cër mm-hmm. bi mu génnee àdduna loo yëg man maa ngi woon Casamance man sëriñ bi keroog daf ma téye ni man ko damay ñibbi waaw may ñibbi mm. man quarantième jour bi rek laa fekkee moom laa fekkee fii ñëw bi ma ñëwee tamit ah wax naa li ma xam ci moom. waaw daal sama xarit la woon sama grand la. sama am di jàmmal ba pare nag ñu seq liggéey. parce que affiche am yi mu doon defar yëpp maa ko doon defar moi je industries polygraphiques. ba pare damay jaay oto aussi. ah d'accord. you a nettali euh, ah man man jour ñëw naa fii bi ma ñëwee. mun ma yow dig heure bii ngay ñëw sama ay vingt heures ma ne ko non dama am ay commande yu war a dem Gabon dama manqué cinquante mille Kiné Diouf du ko wok ah mu ko Kiné bu ma jox ma cinquante mille ba pare jox ma dix mille lu ma paasal loolu xew na fii ci ci bureau bi man kër gi bi ñuy def fondement bi. par exemple ñu ñoo fi nekkoon di garde kër gi man ak Kati moom laa tuddee suma taabu jigéen. Hmm. Raku Jaaga moom laa tuddee suma taabu jigéen Marie Kati Guèye you know. Hmm. yàpp. yëpp merci. tonton ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay. en tant que tey yow xaritu Papa Thione nga xamante ne da lay woy ba sénégalais ñëpp xam la muy woy boobu mu xam ne dañ la ciy wax Ndiol Sikkim tey lan nga ñu mën a wax ci Papa Thione loo leen waaw Thione moom dafa nekkoon nit koo xamante moom Thione Seck rek moo xamoon Thione Seck nit ànd na ak Thione Seck ba ni mu fi jógee te xamul Thione Seck à cent pour parce que dafa bëri ay valeur te valeur yi nekkoon ci moom yombul ci nit bu mu nekk déjà anecdote bi ma lay njëkk a jox rek mooy fépp foo ànd ak moom walla lépp looy lijjanteeg moom nu dayo bi mënti toll bu nu xësee nodd pare na ca loolu lim lañ jëkk a laaj tax yaa ngi jàpp ma ne ko waaw mun la di xaamal ñu julli wala nañ dem ci jàkka ji ñu julli bon beneen bi ma ciy teg mooy ci àdduna lu mu metti metti metti metti metti metti dëgg rek la lay wax te yàlla rek tax kon donc yooyu yëpp nekk ay valeurs yoo xamante ni su dajalew ci benn nit rek donc dafay doy waar trop trop trop trop trop ba nga xamante ni coon sekk daal mooy Thione daal ci gàttal waaw. yéen relation ngeen amoon yéen ñaar. waaw moom moom moom lépp la woon ci man moom xarit la woon bàyyi la woon ci man lépp la woon ci man complice la woon ci man donc moom lépp la woon daal ci man waaw ci man quoi. tey di 14 mars ñu fete li nga xam ne mooy un ci biir suuf mu métti loolu tey ban yëg-yëg nga am. waaw métti rek métti rek naqaru xool soo xoolee dama xamul nu ma leen def sax mais wax bi sax tiis na ma. parce que suma xool wax yàlla daal mu ngi noonu daal. waaye nag comme ay jullit lañ tamit te danoo war a muñ dañu muñ rek xam ni loolu la yàlla dogal. tey lan gi nga xam ne moom la bàyyi ginnaaw di taawam euh, Lamine naax ak ki nga xam ne mooy Waly Ballago Seck. waaw ñu rek parce que Thione Seck sa baay rek doy na sas comme ñoom seen baay gaynde loon te gaynde googu nekk seen baay gaynde du jur muus man gis naa ci ñoom gaynde ak njàmbaar donc dama leen ñaanal ñoom fan wu gudd rek ñu sut seen baay fan. waaw métti na nag may nañ ko muñ rek waaw. di masawu di ñaan suñu borom bu xaaree ko àjjana. allahumma amiin allahumma amiin